asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ñu nuyu leen gërëm leen sant leen si ànda bi nga xam ne saa su nekk yéen a ngi koy ànd ak QTV ak Q Radio di téeméer ak ñett yu toftal ñett ñu andi leen xibaar yi diggi bëccëg bi ngeen ànd see seen doomi de Linguère Bassène Loum si boppi xibaar yi di ngeen dégg ki nga xam ne nag mooy Alhaji Ousmane Dia nga xam nag mooy chairman bi foofu noonu sa National Hajj Commission moom nag andi na ab yëgle di wane nag atum ren bi bu soobee yàlla nag hajj dina am foofu noonu sa Saudi Arabia mbokk yi ba tey si boppi xibaar yi kii di uyoo nag si Amadou Amadou nag moom ab ticca la mu doon ni koo xam ne nag jamono yi nag yàlla wërsagal na ko mu am ñetti doom ak ki nga xam ne nag mooy jabaram gannaaw bi nga xam ne nag mu ngi am juróomi doom yoo xam ne nag yàlla may na ko ko waaye kii nga xam ne nag mooy Amadou Kambo moom nag wax na ne jafe-jafe yi nga xam ne nag mu ngi koy jànkuwanteel na nag si jamono bii ñu toll ak ñetti doom yi nga xam ne nag yàlla jox na ko ko si jamono yi ba tey si boppi xibaar yi di ngeen dégg ab uh, Charitable Medical Foundation ñu gën leen a xamee nag si cosaan ñoom nag am na lakka-lakka bu métti boo xam ne nag amoon na foofu noonu sa Dipakunda si kër bu ñoo xame xamee Jobkunda ñoom nag jox nañ leen ay lekk ak ay yëre teg si nag lu toll si ñeen fukki junney angale si ñi nga xam ne nag ñoo amoon lakka-lakka bu métti boobu noonu mbokk yi ak xibaar si gannaaw baax bi lay doon ñu andi si ab yaatal mbokk yi comme ni leen ko junjalee si boppi xibaar yi moom alxaaji Ousmane Dia nag andi ab leeral nag lu jëm si wàllum xaj ne nag dina am si at bi ñu nekk bile mbir nag den see ànd ak Bibi Biram Diop mu andi ab yaatal Kingdom of Morocco di nguuru réewi Saudi Arabia ñoom yëkkati nañ seen i bataaxel pour xamal askan bi rawatina sax muy képp ku nekk jullit nekk si aduna bi ak bépp béréb boo munti nekke ne ren ji nag fas nañ ene pour ubbi nag muy wàllum aj bi gannaaw ba nga xam ne nag ñaari at gannaaw nag tëjoon nañ ko mbaasa mu amoon ay nit yu néew yu nga xam ne ñoom leen joxoon ne ñoom ñooy war a dem aji Makka te mu nekk muy juróomi ponk bi si wàllu muy diine moo tax jamono ji nag ñu fesan ak benn bataaxal ba xamal nit ñi ne wàllum aji màkk nag ren ji nag ko ubbeeku na te nit ñi nag ñu ngi commencé pour war a bind si ñi nga xam ne ñoom leen gëm ne ñoo leen naa war a mun a yóbbu pour a dem aji màkk muy ren ji nii bataaxal bi nekk ko fesal moo nekk muy alhaaji Ousmane Dia moom mi nga xam ne moom moo dali jiite muy wàllum aj bi fii si biir réewi Gambia moo ko fesal si taskati xibaari QTV moom alhaaji usman Dia nekk chairman bi si National Hajj Commission mu nekkoon naka jamono dina ñoom préparé neen pour lépp lu nga xam ne moo nekk muy matuwaay ak lu nekk muy sart ñoo war mun a tegee boor nga xam ne képp ko bëgg a ko fii si biir Gambia dem Saudi Arabia nga war a mun a def na muy juróomi ponk bi si wàlla muy diine islam ñu war la war a mun a dimbale pour sa kayit dem si ni mu war a mun a nekk di demee mu nekkoon naka jamono ji nag ñoom naka def neen seen matuwaay yooyu nga xam ne moo nekk si aju nag wàllu muy kayit yi ak lépp lu war a nekk aju si yooyu fànn si diggante Saudi Arabia ak ñi nga xam ne ñoo leen a war a nekk di leen yóbbu mu ne nag suñu bàyyi xel si jamono muy covid 19 maanaam mu nekk jamono feebari mbas bi nga xam ne moo amoon si gannaaw muy nguuru réewi Saudi Arabia ñoom nag waxoon ne ne dinañ jëf seen matuwaay bu baax waa pour jéem a wàññi fu julli di mun a béy ko si adduna bi nga xam ne nag nit ñi di war a mun a bëri si boobu béréb ndaxte mun nañoo góob ne feebaru nag mun na moo law si yooyu façon fànn moo tax nag Gambia ak yeneen réew yi nag ñu waxoon ne ne lu ñoo am mooy lu war a toll si ñaari junne doomi aadama ñu war a dem muy aji Makka moo tax ñu ne ren ji na muy si atum 2022 bii nii préparé nañ pour gis naka mu juróom-ñetti téeméer ak juróomi nit ñoo nekk ñi nga xam ñoom ñi rek dañoo war a mun a joxagum nag ngir ñu war a dem muy aji màkka si njël benn semaine bi si weeru julaay atum 2022 bu nga xam ne moom la nekk neen ndax xam sax dëgg la ñu ne naka góom ne ne lii dafa gàtt waa naka neen xam ne naka yàlla bu du su la wooye foog nga jéem a dem nag aji màkka fu nga xam ne moo nekk si biir Saudi Arabia moom alxaaji Ousmane Dia mu ne dëgg la bi nga xamee Saudi Arabia wax na ne ubbi ne pour ni ñu war a dem nag aji màkk nag ren ji waa nag am nag ab yenn sart ndaw yi nga xam ne si boppam ñoom ñi dinañ ko jéem a bàyyi xel maanaam képp ku nga xam ne am nga lu war a toll si juróom benn fukki at ak juróom dem si kaw wala boog sax yow sa wàllum wér-gu-yaram mu nekk wér-gu-yaram nga xam ne si boppam dafa xawat na sax yoon nag mun na moo am nag duñ la war a mun a nangul nga war dem aji màkk muy ren ji ñaareel bi tam foog nga jéem am na kayit bi di Covid 19 test maanaam muy kayit bi nga xam ne mooy war a wane ne yow naka am nga nag muy vaccine bi nga xam ne moom nga jël te naka muy feebar muy Covid 19 muy feebar mbas bi amuloo ko ak lu nga xamee si yellow fever mu nekk muy beneen feebar bu nga xam ne si boppam nekk bëgg neen ko nga war a mun a def nag muy boobu test ndax yow mi tam amuloo ko ak lu gën a xamee si PCR négative test maanaam mu nekk muy beneen gëstuwaat bu nga xam ne si fan wér-gu-yaram la mooy doon ne loolu tam amuloo ko si diggante ñetti fan bala nga àgg foofu na si biir Saudi Arabia loolu nag bokk na si ponk yi nga xam ne moom nga war a def soo waree dem foo dem si nga xam ne ñu ne moo a am solo nag mooy war ngaa mun a jëfandikoo muy face mask saa yu nga xam ne a si covid 19 guidelines a mun a mucc si biir façon a ñaax képp a dem nag aji fu ne si biir Saudi nga def sa matuwaay war a dem ñoom nga war a mun a demal pour ñu war mun a jëf na si matuwaay yi ngir ñu jàppale la ngir nga war a bokk si ñi nga xam ne ñoo war a toll si juróom-ñetti téeméer ak juróomi nit ñi nga xam ñoo war a dem aji màkk ren ji ni foo ne si biir Saudi Arabia moom alhaaji Ousmane Dia mu nekkoon mu ngi gërëm bu baax muy président ni mi di président Adama Barrow ak ministre yi nga xam ne si bopp ñoo nekk di liggéey si ronam gannaaw bi nga xam ne si boppam ñoom ñi ñoo gën a tax ba lii mu gën a nekk di antu mbokki ba tey si xibaar yi góor gii di uyoo si Amadou Kambu moom nag ab jàngalekat la jamono yi nag yàlla mu ngi ko wërsëgal ak jabaram nag lu toll si ñetti doom moom nag wax na jafe-jafe yi nga xam ne nag mu ngi ko doon jànkuwanteel laata nag jamono bi le ba tey dañ see desandi ak kii nga xam ne nag mooy Bibi Birame Diop mu andi si ab yaatal si buntu wér gu yaram bi gestu wane na ne si nekk ñi nga war a xayma jigéen yu baaxoo di toll si wàllu matu ak xale yu la baaxoo di jutu nag si lepitaan yi mbaa ñu la baaxoo di jutu nag seen biir kër naka suñ ko war a xayma su nekk naka ñaar téeméer ka juróom fukk la mun nañoo jàpp ne lu ëpp doole si ñoom naka daanaka benn am na ñu nga xam ne si boppam ñoo fa nekk seex maanaam ñoo fa daldi am lu war a toll si ñaari doom te nag li na li ko waral moo nekk benn gestu nga defoon nañ ko pour war a mun a seet nag loolu lan foog ne moo ko le baaxoo di ko waral gestu bi tam wanewaat na ne si nekke compté nga lu war a toll si fukki junne jigéen ñi nga xam ne si bopp ñoo dal di ëmb mun nañoo jàpp ne par benn benn si ñoom ñi ñoo fa li am lu war a si doom si benn yoon bi léegoo leen nag soo demee bi nga xam ne que compté nga nag lu a ëpp nag si ay junne junne doomi adama ñi nga xam ñoo dal ay ndekumba ñoom ñi ne suñoo war a xayma si ñi nga xam ne ñoo fay baaxoo di am lu ñu xamee si triplette maanaam ñetti doom nag juddoo ndoor nekk na par benn benn bu nga xam ne di la baaxoo di bëri nekk gëstu woon moo taxoon bañ amoon ki nga xamee si Amadou Kagbo moom nga xam ne nag moom nekk na waajur bi nga xam ne soxnaam am na lu war a toll si ñetti doom si benn yoon. moom Amadou Kag moom mu ne moom am na mbégte bu baax a baax ndaxam sax métti woon na lool waane mi ngay gërëm bu baax a baax buur yàlla gannaaw bi nga xam ne may na soxnaam naka muy wér-gu-yaram bi mu war a mun a matale lenn lu nga xam ne si boppam yàlla buur bi moo ko dexeñ si biir jigéen ngir mu war a mun a wasin si lépp lu nga xam ne moo nekk yooyu façon ngi coono mu ne gannaaw bu loolu nag di sant yàlla bu baax a baax naka gannaaw nga xam ne xale yi naka ñoom ñi kenn ku nekk am na wér-gu-yaram rawatina sax mu nekk ab soxnaam mu ne luy nag nekk na yokkute bu baax a baax naka si moom ak tam si biir njabootam ndekte sa soxna war a am ñetti doom si benn yoon bi loolu nag nekk na lu nga xam ne lu jëfe la waa nag lu nga xam ne su boppam ne lu war a nekk di am la mu ne kon soxna soxnaam ne di jaareetu kagbo nekk na jigéen bi nga xam si boppam ne dëgg la moom nag am na coono lool waa nag si boppam nag am na bu baax a baax mu mbégte si jamono ji nii mu ne mu ngi gërëm bu baax a baax tam nga xam ñoo nekk liggéey si buntu wér gu yaram bi gannaaw bi nga xam ñoom ne defoon ne seen gas na ba gis ne soxna mu ngi amee lu war a toll si ñetti doom si biiram bi ñoom ñu defoon seen matuwaay suba ngoon guddee bëccëg di def seen i wàllum wér gu yaram pour ñu gis naka muy xale ak seen ay waajur ñu nekk ñi nga xam ne si boppam ñu ngi dund moom Amadou Kag boobu nag jamono ji nag moom am na lu war a toll si juróomi xale te naka juróomi xale moom moo leen nekk di leen amee seen fanamu dund rawatina sax mu leen baaxoo di fayal gaa ñu war a dem pour jàngi ak yeneen soxla yi nga xam ne moom la ñoo dal di soxla mu ne moom nag ticca la maanaam mu ngi yëngu si wàlla muy jàngale te nag jamono ji nag am amam nekk na am am bu nga xam ne moom dafa xaw a sax lool te nag bëggoon na lool ndimbal dem si nu mu gën a mën a nekk di yokkoo si fanaam gannaaw bu la weesu nag mooy gestu mu ngi daloon di am si University of Birmingham mu nekk si biir réewi Angleterre bi nga xam ne natt neen ne su nekkee compte nga lu war a toll si téeméeri xale yi nga xam ñoo juddu juróom benn fukki bi yëpp ak ñaar dañ nekk ñi nga xam ne si bopp ni daal juddoo si anam bi nga xam ne moom seen ay waajur seen loxo ñoom jotu ñoom seen i gannaaw soo continué lu war a toll itam si téeméeri waajur yi nga xam ne si boppam seen soxna nag am neen doom ñeent fukk si ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne par benn benn si ñoom ñi ñoo fa gën a doy waat nag maanaam si ab ñàkkin si ñoom la gën a nekk di sonne nag lii nag gëstu bi na ma ko daloon di waral foo ne si biir réewi Angleterre moom Amadou Ka moom mu ne kon nag lii moo tax moom na mu am yaakaar ne que warugal la moo doon pour nga xamee que dinañ jéem a ubbi lu ngeen a xamee si fondation maanaam mu nekk ab béréb bi war a mun a tax képp ku nga xam ne ëllëg si biir sa jabar am na lu war a toll si ñaar ba si ñetti doom mu war a mun a dem si ñi nga xam ne ñu koy war a mun a dimbale si lépp lu nga xam ne la may war a mun a nekk am si fanam wér gu yaramam ñu ne kon nag képp ku nga xam ne bëgg nga dimbale muy Amadou Kagbo mii nag moo xam si wàllu muy koppar mbaa sax mu nekk mu yeneen jëfandiku yi nga xam ne njobootam dina ko war mën a jariñoo nga fexee rek kool ko si 33 33 245 33 33 245 mbaa nga email QTV si news at qtv dot gm mbokk yi cosaan charitable medical foundation ñoom naka ni samdi samedi bee ñu génn ñoo joxe woon naka ay lekka ak yëre si ñi nga xam ne naka ñoo amoon lakka bu métti foofu noonu sa Dipakunda si kër bu ñu xamee naka Job waaye nag ba tey si gannaaw bi nga xam ne joxe neen yële bagage teg neen si lu toll si forty thousand dalasis den si ànd ak bii bi Birame Jobe mu andi si ab yaatal benn mbootaay bu nga xam ne nag am na seen màkkaane fii nii si biir réewi Gambia mu nekk ab mbootaay bu nga xam ne si cosaan mbootaay bi nag seen dimbal mooy di aju si fadamu wér gu yaram ñoom samedi bi ne passé nag yëkkati neen seen i aleel koppar war a toll si ñeent fukki junne koppar réewi Gàmbi ak ko dimbale ñenn nga xam ne si mu nekkoon ay fan si bi nga xam ne QTV ñoom nag demoon ne baax muy boobu dëkkuwaay bi nga xam ne moo dalee nekk si biir Dipakunda ba lépp lu fa nekkoon nag si boppam si ay bagage mu yàqu nga xam ne moo daloon di lakk ba QTV nag sàkk woon dimbal si yaay seen i tur gannaaw bi ñu ko gisee nag si boppam si télé bi leen wax ne dinañ def seen matuwaay te yàlla tax ñu ñëw jàppale ko muy bii façon yi mbootaay moo tax jamono yi nag ñu jëndal lu tool si ñaar fukki saako maalo bi nga xam ne benn bu nekk mi nga am fanweeri kilo ak ñetti galoni diwlin ñaari saako sukaar ay yére ak kopparu toll si ñeent fukki junne kopparu réewi Gambia jox ko ñu nga xam ne ñu amoon lakkale foofu noonu si biir Dipakunda nekk si biir Tuni Kanifing municipality si kere bés bi bi mu ne moom nag lii ko dalee def nekk si dara nag waaye koo dimbale ñu nga xam ne jamono ji soxla nañ ko lool mu ne nag su nekkee gis ne nag bu baax a baax mu lakkale bi nu mu amee woon ak li nga xam ne moo ko daloon ci sabab war nañoo xam ne nag njaboot bi nag soxla neen bu baax a baax muy ndimbal te kon nag lii nekk na as tuut bu nga xam ne si boppam la ñoom loolu la mën a dal dajale mu ne kon nag góom na nag mu ndimbal bi nag dina war a mën a dimbale as tuut si ñoom ñi nga xam ñu am lakkale bi si kër ak bi nii mu ne di leen jéem a ñaax tam ne ñu jéem a def seen kéem tolluwaay kàttan pour jéem a bàyyi xel si lépp lu nga xam ne ëllëg si biir mun na moo indi wàllum lakkale si boobu béréb si wàlla moom di max si se moom mu bokk si boobu kuréel mu ne nag ñoom seen bébé nag mooy ñi seet ñoo war a mën a dimbale ñenn ñi nga xam yàlla bu teg na leen nattu te fekk na ñoom mu ni ko fajal ñoom seen soxla mu ne lu gën a métti nag mooy nga am sa am-am ak nga am tam sa lépp lu nga xam ne moom nga yaakaaroon yàlla bu nag teg la nga xam ne mënuloo si dara jaarale ko si wàllu muy lakkale nga ko gis nii te fekk amoo dara lu nga xam ne moom nga si war a nekk di def mu ne kon cinq na yow lii dem na bi am looy gën a mooy ku nga xam ne moo ñëw jàppale la te yàlla tax su nim gën a mun a nekk di demee mu ne nag ndimbal bi nii nekk na ndimbal bu nga xam ne am na soxla lool ñu ko mun a yóbbu si ñii mu ne kon mu ngay ñaax tam ñeneen tam ñi nga xam ne ñoo nekk si biti si nekk nag yàlla bu nekk meenal leen ko seen biir xol ñoo jàppale ko muy njabooti bu nekk foo ne si biir Dipakunda Lamine Boye nekk kilifa si ñu lakkale woon si kër Mbese Fone si biir Dipakunda mu ne moom nag amatoon daral lu muy wax ndaxte moom dëgg kilifa la te nag li mu amoon yëpp ak lépp lu nga xam ne moom lañ yaakaaroon mu ngi nekkoon si boobu néeg te nag néeg yëpp daal di lakk mu nekkoon sekk na ñi ñëw ne suñu gën a mën a gaañ ba jàppale leen amoon dara lu moo wax su mooy mu bàyyi leen ak yàlla di leen ñaanal yàlla buur mu fay leen si lépp lu nga xam ne moo dal di kawe si gaay seen wàllu muy njottu ñu ne gannaaw ba la na si ñaareele fan bi tam mu amaat muy beneen mbootaay bi nga xam ne ñoom yëkkati nag seen ale na muy fukki junneeg juróom dal ko dimbale muy ñi nga xam ñoo amoon lakkale bi si kër bés bii mbokk yi ba tey gannaaw bi nga xam ne nag moom président Adama Barrow nag tànn na ñi nga xam ne nag ñoom la war a kii nga xam ne nag mooy ministre bi nga xam ne nag mu ngi ko dénk wàllum diw moom nag andi na ab leeral si fi nga xam ne nag foofu la ñu ko dénk liggéey bi nga xam ne nag dina ko matal ba ni nga xam nag noonu la ko nguur gi soxlee si moom nee na nag li nga xam ne mu ngi koy ñaan si ñi nga xam ne nag mooy nawet ñu am ndimbal boo xam ne nag dina leen jàppale ba nga xam ne nag li nga xam ne moom la bugg def si liggéey bi nga xam ne moom lañ ko dénk dina am si bi réewi Gambia den see desandi ak ki nga xam ne nag Bibi Birane Diop moo andi si ab yaatal. jërëm bu bees mu nga xam ne moom leen tànn mu nekk muy minister of petroleum and energy muy jërëm mu amee muy wàllum pétrole ak wàllum courant fii si muy réewi Gambia muy Abdoulaye joob moom demoon na pour war a mun a nemmeeku muy yenn béréb yi nga xam ñoo nekk si ronam te suñ ko waxee nag mooy ñu amee muy wàllum ndox mi ñu amee tam wàllum courant muy nawet pour war a mën a xamal boppam naka la mbir bi nekk di demee lan moo nekk yeneen jafe-jafe ak lan leen foog ne suñ ko defee dina war a mun a yokk muy liggéey bi nga xam ne nawek moom la war a a def fii nii si biir réew na moom Abdoulaye Diop gannaaw bu mu demee yóbbu nañ ko nag si béréb yooyu nga xam ne moom la nawek am benn bu nekk foofu si biir tundi kootu ak bu nekk foofu noonu si Sukota ak bu nekk foofu noonu si biir Birkama gannaaw bu mu fa demee fekk na fa ñi nga xam ne si boppam ñu ne ko muy njiiti nawek ak muy borom xam-xam yooyu nga xam ne ñoo nekk di liggéey si foo nga xam ne moo nekk nawek mu nekk ñu amee muy wàll wàllum ndox mi ak wàllum courant bi ñu suñu fàttale ko nag si gannaaw mos na moo nekk muy managing director maanaam mos na moo jiite muy béréb boobu noonu di am naweeg te nag moom góom na nag xam-xam boobu nga xam ne moom la fa amoon bañ ko faa war a mun a jëlee nag def ko mu nekk ministre lool dina war a tax mu baax a baax muy wàllum ndox meeg wàllum courant mu dem comme ni nga xam ne noonu ko nit ñi di ko yaakaaree ñoom na ñu ngi commencé seen i wóor bu na foo na si kootu power station nekk foo na si biir kootu gannaaw bu nga xam ne ministre bi na dem na naka muy bàyyi xel bu baax a baax si ama machine yooyu nga xam ne moo nekk foo na si biir kootu luñ góom ne si boppam noonu la nekk di demee ak lan moo nekk muy yenn jafe-jafe yi nga xam ne moo fa dali nekk ndaxam sax mën nañu fàttali ko ne am na yenn machine yi nga xam ne am na lu war a toog si fanweeri at ak ñaar na gannaaw bi ko fa defee ba léegi te mu nekk si jamono muy nguuri saa Dawda Kairaba Jawara am na yu nga xam ne ba léegi mu ngi dem waa nag am na yu nga xam ne tam ba léegi nekku di dem comme ni nga xam ne ne noonu na nit ñi nekk di ko yaakaaree moom Ablaye Diouf tam nemmeeku na muy bépp machine boobu nga xam ne moo nekk foo ne si biir kootu power station ni mu nekk di demee waxtaan ak muy ñu fa liggéey mu xam bu baax lan mu fa nekk yéen a ak lan ne foo ne ko defee dina war a mun a muy borom xam-xam nga xam ne ñoo nekk foo ne si biir kootu gis naka seen liggéey ñu war koo def si ñu gën a mun a nekk di rafetee ak nu mu gën a nekk di yombe si intérêt askan réewi Gambia gannaaw bu njëkkoon na si kootu nag demaan na ànd ak mbooloo mu takku bi dem foo ne si Sukuta water plant maanaam mu nekk muy bërëb boobu nga xam ne li ñoo seggee ndox bu nit ñi di naanee te mu dalee ko fu ne si tundi Greater Banjul area moo si biir tundi Banjul Kanifing dembe fu nga xam ne moo nekk si biir tundi Brikama lu ko dal di wër gannaaw bi ñu fa demee nag si boppam waxtaanee tam ak ñi nga xam ne ñoo nekk di liggéey foofu noonu si ama Sukuta water treatment plan bi ñu xam tam lan moo nekk yeneen jafe-jafe mu xamal tam boppam tam lan moo nekk mbir yooyu nga xam ne moo nekk di def si seen fànn muy jëm kanam boobu leen fa génne tam dem foo na si Jaabang power plant maanaam mu nekk muy bërëb boobu nga xam ne moom lañ samb foo na si biir Jaabang te nag boobu warugalam mooy moo ñu jéem a seet naka la ñu war a mun a matale wàllum courant mooy si tundi Westcoast Region mu tuddi Brikama ak lu ko dalle wóor ñu am courant bu nga xam ne du war a am benn façon jafe-jafe mbaa benn jafe-jafe bu nga xam ne mun na koo àggee si wàllum muy indi courant ak wàllum muy ndox mi foofu nag si muy jaabar naka am na naka muy benn liggéey bu bees bu nga xam def nañ ko fa te naka liggéey bu bees na nag mooy yenn transformer yooyu nga xam ne moo nekkoon si boobu bërëb naka dañ ko dal wécci na def fa ju ees te gannaaw bi ñu ko wécci def fa ju ees nag moom ministre bi di Alaaji Diop li mu leen jot a wax mooy mu nekkoon mu ne naa ñaax ñoom technicien ne neen def seen matuwaay na gis naka mooy yi nii neen ko bàyyi xel bu baax baax di ko war a sàmm comme ni ko war a mën a sàmmee nga xam ne du gaaw a yàqu mbaasu du am benn jafe-jafe bu koy war a mën a nekk ko sooxee boobu leen fa génn nag muy fourneau si biir Jabang dem fourneau si biir Birkama Birkama nag nekk na bërëb boobu nga xam ne su boppam ne muy wàllum courant bi moo gën a ñëw pour jàppale muy wàllum muy Koto Power Station te boobu bërëb na ñu ko samp depuis si atum 2009 te ku ko sampoon na moo nekk Yaya Jammeh nekkoon njiite réewi Gambia ñu ne boobu béréb nag muy fona si biir Brikama nekk ne béréb boobu nga xam ne nag am na doole lool te nag liggéey boobu nga xam ne moom la ñu nekk di liggéey fona si biir nawet seen jiite wax mooy bëgg neen bu baax ñu war a mun a gis naka muy loolu ñu bàyyi fa seeni xel gis tam bu baax a baax nu mu war a nekk di demee yokk doole bi ngir courant dem comme nu mu nekk di war a mun a demee pour ñëpp gis seen bopp si wàllu mu dema dëkk si fada muy courant moom ministre bi naka gannaaw bu ñu waxtaan taskari xibaar nag moom wane na bu baax muy mbégte ak muy kontante bu nga gis na ko si wóor bi te mu ne lii na tax moom mi nga xam ne jamono ji moo nekk muy ministre mu war a mun a xam su ëllëg si biir fan ak fan la ma war a teg loxoom fan a fan la moo war a dugal làmmiñam pour courant ak ndox mu nekk lu nga xam ne di a mun a sonal kenn ku nekk fii nii si biir réewi Gambia mu ne moom nag am na mbégte bu baax a baax moom mu doon si biir nawet am na as tuut bi nga xam ne xam na ko fa ba war a ñëw nag nekk si bërëb boobu nga xam ne mooy war a mun a ñëw pour dimbale muy nguuru réewi Gambia pour ñu war a mun a saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom lañ nekk di jànkuwante si jamono ji nii mbokk yi ba tey lu mujj si xibaar yi dikk bi ñu xamee nag sa United Kingdom ñu gën koo xamee si Angleterre ak Rwanda ñoom nag ñoo andi ab nangatoo boo xam ne nag def neen ko si weerum april gannaaw bu mu amee fukki fan ak ñeneent ñoom nag li nga xam ne mooy seen nangatoo mooy doomi réew yi nga xam ne nag ñu nga toog foofu noonu sa Angleterre ñu seet nag naka leen leen di delloo si seen réew moomu noonu nag seet naka leen leen di jàppale si seen dëkk boobu noonu waaye ba tey daa mel nag du Angleterre rek indi mbir dafa mel ne nag beneen dëkk bi ñu xamee si Denmark ñoom it ñu ngi waaj pour def bile mbir ba tey ñu desandi ak ki nga xam ne nag mooy Bibiran Diop moo andi si ab United Kingdom muy réewi Angleterre ñoom am nañ nangutoo bu ñu def si diggante ñoom ak Rwanda Rwanda mu nekk dëkk bu nekk fone si biir tundi muy South Africa nag jamono ji nag am na nag waxtaan nga defoon nañ ko si fukki fan ak ñeent si weeri april muy weer bu ndali weesoo ni ndég nde buggoon neen pour ñi nga xam ñoo naka muy seen i doomi ñu jëlee leen foofu ne si biir réewi Angleterre yóbbu leen fone seen biir pour ñu gis naka seen ay nit yi ñu seen naka ñu war a mun a rafetale seen wàllum waxtaan pour ko war a mun a am kayit am kayit ak ku nga xam ne mënut am kayit ñu xam ne kii ni wartu war a mun a am kayit foo na si réew mi nga xamee si Angleterre ku fësal lii nag moo nekk muy Boris Johnson moo nekk Britain seen prime minister bi moom ñu jot a wax rek mooy jamono ji nag am na waxtaan bu am solo si diggante ñoom ak réewi Rwanda seen njiit bi di Paul Kagame fu nga xamee yàgg na moo wax ne warugal jot na pour képp ku nga xam ne nan ngaa dem bitim réew nga war a dem bitim réew waaye nag da nga war a mun a fekk nag nga jaaree si ni nga xam ne nu nga war a mun a nekk di jaaree te ku nekk gëm na ne jamono ji nag képp ku nga xam ne dawoon nga génne foofu na sa réew boo nu di Rwanda nar a dem foo ne si biir réew mi neen xam ne mun nga delluwaat ndekte lu nga xam ne moo taxoon ba yow mii nga fone ne di nga war a mun a daw génne sa biir réew dem biir réew Rwanda moo leen gën a xamee si asylum loolu nag mun nañoo jàpp ne loolu dafa dali jeex tak te kon nag jamono ji nag mun nañoo jàpp ne ñoom ñi kenn ku nekk looloo ragal loolu nekk na lu nga xam ne si boppam ne waruloo ko nekk di ko ragalaat. moo tax nga xamee si levi mbog yi nekk muy Centre Africa seen dara bu amee muy wàllum àq ak yelleefu doomi aadama mu ne war nga jot na pour ñu gis naka muy lépp lu nga xam ne moo nekkoon jafe bu nit ñi nekkoon di jooyantu foo si biir Rwanda gannaaw bu nga xamee si boppam di ay atti at si gannaaw juróomi téeméeri junne doomi adama ñàkk ne fa seen bakkan si diggante mu yooyu xeex bu nekkoon si diggante ñaari xeet ñu nekkoon si ñëkkaloon na loolu dem na ba jeex ba léegi nag ñu ne nag nit yi war ñoo nekkaat benn lan moo war a tax ba ñu bëri war a mën a daw génn seen ab jaare ko si yooni suuf si mbaa mu nekk si yooni géej gi pour nar dem foo si biir réew yi Angleterre mu ne kon nag nangutoo bi nag mu war a am si diggante mu ñaari réew yi dina war a jëriñ bu baax a baax képp ku nekk doomi réew yi Rwanda te nga nekk foo si biir Angleterre te fekk ne sa ab wàllum kayit sakku nga ko waa nag mënuloo ko am si nguuri mu réew yi Angleterre gannaaw bu loolu weesu nag muy beneen réew bi di Denmark ñoom tam ñu ngi préparé pour gis ne dina am waxtaan ak réew boobu noonu di Rwanda pour nga gis nag muy képp ku nga xam ne dawal nga fa ne dem foo si biir bitim réew te fekk yaa nga nekkoon di joytu nag sa ab réew nag sa àq ak sa yelleef den ko nekkoon ko xët yoo tam ñu seet naka laa war a mun a delluwaatee nga dem foo na si biir réew Rwanda nga def lépp lu nga xam ne moo nekk sa warugaal ndekte moom jamono ji nii nguuru réew Rwanda préparé woon pour war a mun a jël kenn nat ko war a mun a nekk ko bundu xatal mbokk yi dafa mel ni lii la ñu waxtu mayoon ñu ngi leen di jox dig daje bu ñu ko laaw buur bi mayee fekkee ba ëllëg si benn waxtu gi ji ñaan laaw buur bi yal na ñu musal si musiba ak balaa jéggal ñu suñuy bàkkaar di gërëm ñi nga xam ne nag ñoo fare woon si wàllu masin bi jërë ngeen jëf ñu yendoog jaama